gan gi Mayoro fay euh, jërëjëf Anna Mayoro mooy secrétaire euh, général adjoint bi ñu dénk wàllu communication ca parti démocratique sénégalais ñu ngi lay nuyu Mayoro am mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey. maa ngi lay fay Fatou Thiam Ngom. di mhm. nuyu seen euh, auditrice ak seen auditeur yëpp ñu mën nekk. jërëjëf mbaa fayeen bi ndekki na. ah Fayeen bi day talu ko da nga koo teel a yee <laughs> café rek la naan. <laughs> Fayeen ak Juufeen bu nu xëyee lekkuñu du ñu wax alors Mayoro dañuy tàmbali euh, waxtaan wi ak coalition wàllu wi nga xam ni lancé nañu ko fan yi nu weesu euh, ngir tàmbali nag euh, ci naka ngeen déggoowee ba mu naan ci yooyu les élections. waaw xam nga réew mi moom ci wàllu politique képp koo xam ne kii rek yaa ngi fi yeewoo mbaa nga xam fi dara xam nga ne parti démocratique sénégalais parti bu mag la ca jar naa àndal. Mm. parti yu mag yu mel ne AJ/PADS bu Mamadou de Decroix parti bokk gis-gis bu Pape Diop ak de très grande coalition muy bu CRD ñoom Mamadou Lamine Diallo Abdoul Mbaye Pape Sarr LD Debout ak ñeneen ak ñeneen taxaw tem ak waa euh, coalition jot na bi docteur abla ñaan jiite ak ñoom Mamadou Ndiaye ak euh, Bruno Derneville la ñeneen ak ñeneen ñun ñoo dajaloo jàpp ne war nañu taxawal kuréel gu yaatu gu mag goo xam ne day mën a taxaw pour jël en compte jël en charge préoccupation sénégalaises yi ak sénégal yi ci gox yi ak goxaan looloo waral ñu lancer la grande coalition wàllu Sénégal ba pare nag coalition bi ñu ubbil ko ay yeneen i mouvement ay yeneen i parti yoo xam ne ñi ngi tasaaroo ci biir réew mi ñu fas yéene liggéey ak ñoom biir localité loolu moo waral ajjuma bii ñu génn ñu def lancement bu mag ci place du souvenir africain pour que sénégalais yi ak sénégalaises yi xam ne saxaar gi teddi na te incha allah dañu fas yéene am ndam ci joŋante yee mhm. bi ngeen di waxtaan ak yooyu parti nga fi lim euh, ci lan ngeen déggoo ba mën a ànd ci yi. naka ngeen ci nar a demee li ci ëppoon maanaam mooy kenn ku nekk si ñun. Mhm. nangu ne da nga war a ànd ak sa morom ngir li ngeen di wuti ngeen mën ko am. loolu moo jiitu c'est-à-dire la commune vouloir d'aller ensemble et que kenn ku nekk xam ne sa morom am na rôle bu muy jouer ba tax na ngeen ànd moo gën ngeen bañ a waaye itam ñu def ko ci li ñuy wax esprit d'ouverture hmm. esprit de générosité maanaam yaatal kenn ku nekk ubbeeku kenn ku nekk jàpp ne li ngay wut boo koy wut waroo ko am yow rek da nga ko war a am ak sa moroom ndaxte askan wi dañu soxla xel yu bari xalaat yu bari yu wuute yu mën a ànd ba tax na seen jafe-jafe yi nekk au plan local ñu mën koo saafara hmm. indi itam ay coppite yu wér ci li nga xam ne lii moom mooy la gouvernance locale ndax umpalewu leen ne euh, gox yeeg goxaan yi bëri yoo xam ne am nañu ay jafe-jafe. Mm-hmm. ànd bi euh, waaw noppi na def ngeen ko ba lancé coalition bi waaye mënees naa jàpp ne li gën a mitti mi ngi ci kanam te mooy investiture yi naka ngeen ko nar a defee ba ku ne gis ci boppam. waaw xam nga euh, kuréel yu mel noonu nag li ci ëpp bu investir jotee rek li ci ëpp tasaaroo day am. Mm-hmm. mooy li nga gis ci yenn coalition yi mu ah yenn déclaration yi nga dégg mais ñun sant nañu yàlla ba nga xam ne ko fi benn déclaration unilatérale de candidature wala fenn foo xam ne rek ña ngi fay xëccoo entre ñi nga xam ne ñoom ñooy entité yi seq suñu coalition bu mag bii la grande coalition dafa xam ne point boobu lu jafe la moo tax mu waajal ko di ko waajalaat samp benn kuréel gu mag bu ñu tuddee commission nationale des investitures et des opérations électorales euh, ku ñuy wax docteur Cheikh Dieng yore élection PDS jiite ko. Mhm. ak yeneen i kuréel yoo xam ne yi dañ ko samp muy commission communication Pape Sarr bu LDD bu jiite ko. ak commission yeneen ñeent yoo xam ne itam ba tey membres yi nga xam ne ñoo nekk ci coalition ñoo mhm. loolu yëpp daf nu yombal ak état d'esprit bi ñuy waxtaanee ak kilifa yi daje te du n'importe quel kilifa nga gis ne ay ancien premier ministre ay ancien président sénat ancien président assemblée nationale ay ancien ministre ay député ancien président de la République ñooñu ñoo seq kuréel gi donc amul ci réew mi kuréel gu gën a am expérience am expertise sunu kuréel. Hmm. booy xool mandarga yi nga xam ne am nañ ko ñu ko jiite. ñoom président Pape Diop Abdoul Mbaye Abdoulaye Wade Mamadou Lamine Diallo AJ Mamadou Diop Decroix et cetera et cetera euh, yàgg nañu ànd yàgg nañu wax ay coalition hmm. moo tax jafe-jafe boobu jëm ci investiture du yomb moom xam nañ ko te waajal nañ ci sunu bopp. mais xam nañ ne duñu tàggale du ñu indil réeru waaw léegi naka ngeen nar def ba kenn du mer kenn du mer moom yàlla rek ko mën ca du ko def hmm. waaye ñu fexe ba ku mer itam sa mer du yàgg di nga xam ne au mois ni ko seqal ils ont été juste avec toi et que à la base malgré du ñàkk ay petites frustrations hmm. ñu amoon leen à ce que ñu surmonter ko pour aller à l' essentiel mooy bu kenn jiitoo itam bu kenn kooku jël lépp nañu mettre dañuy mettre en place des équipes gagnante yoo xam ne kenn ku ne di si gis sa bopp à la mm-hmm. base bu ko defee frustration du ñàkk maanaam waaye dootul bëri. Mm-hmm. te itam du yàq li nga xam ne moom mooy dëgër laañ coalition bi. d'accord alors euh, lii fës ci coalition wallu Sénégal euh, mooy couleur yi boo ko xoolee daanaka parti démocratique sénégalais rek nga ciy gis mu mel ni la ñu doon tuumaal Ousmane Sonko fële ca yi Askan Wi lu waral ngeen jël zone bleue bi dolli ci mboq mi euh, muy couleur wàllu Sénégal. waaw xam nga dañu waxtaan suñu biir waxtaan yu xóot waxtaan ci démocratie ñun euh, ñi nekk membre CNP bi CNP bi mooy leader yi ñoo waxtaan gis ne faaw ñu am ay symbole ak ay couleur paw ñu am tur ñu def ay proposition leneen li nga xam ne dafa technique trop muy couleur yi hmm. ñu daat koy jël jox ko suñu commission communication bi nga xam ne Pape Sarr bu LD Debout moo ko jiite hmm. foofa nag entité yëpp ñoo fa am kenn ku ne ñetti représentant ñuy xalaat di xool mais mu am benn contrainte boo xam ne bii mënuñu koo jéggi mooy euh, euh, règlement dafa wax ne yoon dafa wax ne ci tabaxinu couleuru coalition wala parti mënoo jéggi ñaari couleur mënoo ko romb mënoo am ñetti couleur ci benn mandarga wu parti hmm. ndax parti yi dafa bari kenn ku ne da nga cee soxloo daal maintenant sauf li nga xam ne moom mooy Euh, couleur yi nga xam dañu jàpp ne ay couleurs yu neutre lañu muy bu weex ak bu ñuul euh, moo waral nag ñoom commission communication bi ñu waxtaanee seen biir ba pare yàlla xam na ne man sax fekkewu ma ko. Hmm. ñoom ñoo ñu proposé loolu mais loolu du couleur PDS kese. Hmm. ak mandarga PDS kese. naam couleur yi PDS la mbokk mi itam PDS la ndax euh, dana waral mu doon mandarga boo xam ne képp kuy wër. coalition bi ànd ak waa PDS da koy teel a gis rawatina ci milieu rural boo xam ne am na ci ñoo xam ne daañu dégg ne Ablaye Wade ak Pape Diop Mamadou Diop de Croix ak euh, docteur Lamine euh, Ablaye ñaan ak Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye ñoom ñoo ànd ak yeneen parti ak i mouvement à la base waaye dañuy wër lan mooy mandarga. Hmm. donte ne nag ñaar ñeent fukki at ak juróom-benn ngi nii symbole euh, épi boobu sénégalais yi di ko xam képp kuy wër coalition bi donte la jàngoo nga gisaat ko dafay yomb. loolu rek la ñoom ñàkk a xalaat ba proposé ñu ko amaana loolu rek lañ ci jublu mhm. ñaari couleurs yi itam mënuñu ko woon weesu leneen li ci desaat mooy yamuñu foofu parce que boo gisee bi yoon dañ ko dugal ci benn cercle mu am ay trait loolu montre la lay symboliser montre boobu symbole la euh, ci siglu coalition jot na la bokk moo tax dafay xool boo gisee mboq bi ñu tëbb ko ci digg bi mu am ay lu mel ne ay trait un deux trois quatre nga xam ne mooy symboliser montre bi loolu dafay wane ne. Hmm. kon am na ay xalaat ñu bëree bëri yu ñu boole pour mën a aboutir à ce résultat. Hmm. loolu nag li ma ci neex rek mooy ñun ñëpp ñu bokk ci coalition bi gis nañ ne de façon démocratique lañ ko defee et que àndu nawle la ñuy ànd àndu gor la ñuy ànd ba tax na loolu xëy na yéen a koy souligner mais en interne. wax dëgg yàlla jéggi nañu foofu. kon daal ñëpp gis nañ seen bopp ci couleur ak mandargay coalition wàllu Sénégal. ñaani ma ni ñëpp kon gis nañ seen bopp ci euh, couleur yi ak mandarga bi waaw ñëpp gis nañ seen bopp te yow boo xoolee keroog suñu lancement bi ni mu alaa daw mee mm. amul benn euh, déchet lépp jaar yoon mm. ñëpp déggoo kafoore euh, dalal xelu Sénégalais yi loolu di nga xam ne ñi incha allah bu leen yàlla jàppalee danañ déggoo ci leneen ak leneen ak leneen ci lépp rek doon njëriñu askan mhm. waa leneen luy xaw a ñuul ci soow mi mooy Talla Sylla mi euh, yëkki ay kàddu keroog ne wàllu moom moo ko moom tur woowee moo ko créé woon ndax yéen dégg ngeen yooyu le kàddu ak euh, lan ngeen ci xaar waaw am na lu ma ci déggoon rek donte nag suivre ma lépp sax mhm. waaye xam nga euh, baatu wolof yi ñuy utiliser mhm. ci nga langue politique bi daf ci bëri yoo xam ne utiliser nañ ko fii utiliser ko fële mais li ci ëpp nag ni koy utiliser itam du bokk yéen koy booleel itam du bokk contexte yi du bokk yenn yi ci syndicalistes yi ñoo koy utiliser yenn yi politique yi ñoo koy utiliser yenn yi association yi ñoo loolu yëpp rek doon ay wuute ci contexte yi ñuy utiliser yenn baat yi. Hmm. ba tax na jàpp naa de ñu nag taala si la du ñu am benn problème ci wàllu euh, la grande coalition wàllu Sénégal ndax. ni ma déggee mu waxee ak ni ma déggee tontu yi ci am jàpp naa ne réeroo mënu ci am ci kenn ku nekk ni nga xam ne li ngay dox xatal sa morom mbaa jël lum moom amu ca waaye Sénégal ñëpp ko bokk ca baat yi itam am na nu ñu leen di utiliser kenn ku ne mën nga ci gis sa bopp ba tax na man gisuma ci benn jafe-jafe ñu nag taal si la gisuma ci benn euh, zone d'ombre aussi wala luy indi coow wala polémique di ko installé inutilement. Mhm. ñu wax ci actualité mbiram passeport diplomatique yi nga xam ni tey ñu ngi ciy tudd député yi ngu Fall Kane nekkoon njiital Centif euh, nekkoon itam inspecteur général d'État wax na fii samedi ci suñu plateau ne euh, mbir mi du fi guleet ndax lata 2012 maanaam ci seen nguur ak xëy na lu ko jiitu mbir mi amoon na fi est-ce que jàpp nga ne xew-xew yu ni mel mënees naa seeti xëy na cosaan li euh, ci régime libéral wala ko romb tuuti ak euh, fan la responsabilité yi war a mën a féetee ci sa xalaat. waaw xam nga lii li xew tey assemblée nationale ñu fi tudd ñaari député. Mm-hmm. ak seen benn complice. loola jotewul dara ak nguur gu fi jaaroon nguuru Senghor wala nguuru Abdou Diouf wala nguuru Ablaye Wade. Mm-hmm. ci nguuru Macky Sall la amee. moom nag bu amee ay firnde ak ay tur ak ay dossiers précis yoo xam ne yi en tant que ku ñu joxoon cër lool ci wàllu seen mu jiite woon ko am xabaar yu bëri yu mu am yoo euh, moom dafa war tey mu mettre xibaar yooyu mu am ci à la disposition des sénégalais en donnant tous les détails bu ko defee parce que les sénégalais war nañ mën a xam leneen li ci des nag mooy tey nekkuñu fi di àtte Senghor mbaa Abdou Diouf mbaa Ablaye Wade Macky Sall moo nekk ci jal bi moom la ñu dénk wóolu ko jàpp ne dafay def lu raw ñooñu defoon ci lu baax te gis nañ ne malheureusement mi ngi moom raw bi mu leen raw ci def ay nitam safaan la gën a jublu ba tax na assemblée nationale bi donte le ñette bokkoon bokk ci moom ñu mën ci lim ku mel ne Moustapha Diakhaté gis nga li mu wax ci assemblée nationale bi hmm. di wax ne taxawaay ba baaxul ca lañ fa war a soppi bari na gis nga euh, seen premier seen vice président muy Moustapha Cissé Lo bokkoon ci kàngam yi assemblée bi moom it lam fa tuumaal di wax ne am na ñoo xam ne euh, seen yëngu dafa jëm ci wàllu yu sénébar yu ñuy tere am na ñoo xam ne seen yëngu dafa jëm ci wàllu ay soxna wala doomi jàmbur wax ne am nañ ñeneen ñoo xam ne ci wàllu engrais bi ñu doon séddale ak ci wàllu euh, gerte semence yi semence yi def nañ ci loo xam ne ni naka su dul noonu waaw bu fekkee ne ñoom ñi dëkk ci kër gi jiite ko yor ko di ko sayt ñoom seen bopp ñoo ne kër gi baaxu Sénégal yi du ñu def lu dul constaté mm. te lii tey am ci wàllu passeport yi dafa bokk rek ci conséquence yi. Hmm. laisser aller bu amee fenn kenn ku nekk da ngay jàpp ne lu la neex sañ nga koo def loo bëgg mën nga koo def moo tax tey indi nañu gilaawaali ci wàllu démocra euh, euh, diplomatie ci wàllu image yu Sénégal boo xam ne bi pour ñu réparer waat ka dana jàpp. da ngay yàpp jàpp ne mbir mi xëy na mën nañu caa njorto ay complicité yu gën a kawe xëy na ñeneen dugal ci seen loxo. wala ci ñoom rek la yem. non député yi ñu ciy tudd. Hmm. danañu yàq xar kanamu Sénégal. Hmm. rawatina ci wàllu diplomatie ci wàllu itam valeur bi suñu passeport diplomatique amoon. Hmm. mais man damay politique de ci ci opposition laa bokk mais njortu ne. Hmm. ah seeni kilifa ci kaw nguur gi am nañu intérêt di doon seen ay complice ci ñàkk pour la yi nga xam ne mooy affaire passeport diplomatique nga xam ne euh, booy seet ñoom lañ cay am sax tekkiwul dara ba nguur gi euh, euh, mu am ay. kàngam yu mag yu ne ci kaw di doon seen complice hmm. yaakaaruma ko nag wax dëgg yàlla mais terewul comme que Euh, li ñuy wax naan la responsabilité est d'abord individuelle ci yooyu question mhm. lu mu doon doon individuel dana laalaale nguur gi nga xam ne moom moo fi samp te moo mhm. leen fa teg te it dañu gis ne boobaak léegi procédure yi yéex na mu mel ne doon dañuy hésité ñi ndax dañ leen di protéger wala duñu leen protéger au moment où ñu ñu jiiñ ay fee yu ñu ma nuru ak ay fee yu ko gën a garaaw mhm. euh, euh, yu ma nuru ñu ngi ci kaso bi am na itam ñoo xam ne def nañu ay fee yu gën a garaaw yoo xam ne tey dugal nañ leen kaso waaye génne leen na mu gën a gaawee parce que dañu bokk far ci nguur gi. Mhm. jërëjëf Mayoro fay ñu ngi lay gërëm amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yow yaay secretaire général adjoint bu PDS bi ñu denk wàllu communication.